mooy euh, dañu gunge woon tey honorable député Massata sàmb ak Mamadou Niang ngir ñu wuy ji ci woo wala invitation bi ngay xam ne chef dib dégg nañu ko démb ndax dañu nemmeeku démb bi ñu nekkee assemblée dispositif bu impressionnant boo xam ne ñëw na fa pour jàpp leen pour ñu éviter loolu lépp dañu doxal seen bopp ñëw dig laaj ndax ñoom ñoo leen soxla ñoo leen bëgg a jàppalu Euh, commissaire ne leen dem leen ba suba ngeen wuy si ñu wuy si wuy si boobu nag li ko sabab mooy euh, respecter ak jox ak yelleefam euh, li nga xam ne mooy dikk li nga xam ne mooy police ndax député yi nga xam ne moom la Massata doon ak Mamadou Mbeng ñaa ñoom ñoo wote loi yi nga xam ne ñoo fi teg dikk ñoo ñooy doxal liggéeyu police donc ñoom worma bi nga xam ne moom la citoyen jox war a jox police ñoom ñiy député dañ ko war a wormaal worma bu gën a euh, ëpp dayoo moo tax ñu ñëwoon et bi ñu ñëwee tamit présenté wu nañ ci lañ leen xamal ne li waraloon ñu bëgg ñu sàkk woon ñu ñëw pour leeral mooy dafa am plainte boo xam ne seen collègue Aminata njaay moo ko fi déposé ne dañ ko dóor ba gaañ ko ba mu jëlee ci tëlewu ñaar fukki fan ak ñett ñu tontu ne ñoom dañu jàpp ne député yi ñuy doon dafa am malaanu kiiraay boo xam ne moo leen aar malaanu kiiraay boobu fii ak muriwuñu ko ñoom waruñoo nangu euh, ñu topp député ñu enquête député wala ñu privé député de liberté donc foofu la ñu sukkandiku ne donc ñoom duñu tontu loolu mooy seen tontu euh, laaj yi bëri na mais tontu boobu rek la ñu joxe. Euh, bi loolu weesoo dañu clôturer enquête bi ne dañ leen di mettre position de garde à vue mooy dañ lay teg euh, loxo lo euh, ay gët yu en attendant xëj na ñu yóbbu la ci procureur moom mi nga xam ne moo ordonné woon enquête bi mu jël ci ay mesures loolu it bu amee niñ ko defee tey maak suma confrère maître Abdou Ndiaye dinañ fa dellu taxawal leen fa pour seen ax ak seen i yelleef ñu mën ko ñoŋal. donc jàpp nga ni garde à ci yoon la ko ñoom ay député. waaw xam nga immunité parlementaire dafa ne kenn mënul topp député kenn mënul poursuivre député kenn mënul priver député de liberté tant que levé wuñu euh, immunité parlementaire am. et comme ñun ñëpp jàpp nañ ne kenn levé gul seen immunité parlementaire buñ leen téye. dañuy jàpp ne méngoowul ak li nga xam ne article 61 bu constitution muy charte ndeyu euh, ndeyu charte réew mi ak article 53 bu réglement intérieur bi nga xam ne mooy naka la ñuy doxalee biir assemblée euh, mais euh, dëppoo wuñ ak démarche boobu donc mais loo xam ne dañu on prend ak bu ñu yeggee fañ ko war a jooyee dañ ko fa jooy incha allah. que jàpp la ni bi dafa jàpp ni mbir mi flagrant délit la moo tax. waaw xam nga mën nañ Euh, ñu nag enquêteur mun nañ bañ a bokk gis-gis mën nañ wuute gis-gis mais ñun li ñu jàpp mooy que mbir mi nekkul flagrant délit euh, nekkul flagrant délit bu justifié nga passer outre immunité lever immunité parlementaire nekkul flagrant délit bu justifié nga jàpp député téye ko euh, ki ñuy àtte nag xëy na du moom moo ñuy àtte du xëy na tamit opinion moo ñuy àtte am na yeneen béréb yoo xam ne xëñ na buñ fa yeggee euh, dina leer ci ci ñëpp donc li nga xam ne daal peut-être werante la ci diggante ak enquêteurs yi euh, ñu leeral ko bu baax mais li ñu jàpp tey mooy que nekkuñu ci flagrant délit te suñu nekkul ci flagrant délit nag kenn mënul téye député. waaw te ñu tur bi Adama Fall. Mm-hmm. waaw xam nga def nañ plainte def nañ plainte contre député Amigné bi parce que effectivement que ce soit Mamadou Nia ou Massata Samb dañu am certificat médical euh, plainte boobu ñu ngi ci waxtaan suñu biir ñun avocat yi bu xool ban anam lañ koy confirmer wala su jotee tamit euh, lépp loo xam ne xëñ na lu lu ñu war a ñoŋal la dañ ko ñoŋal mais encore une fois mën nañ confirmer dëggal ne plainte yooyu am na